affaire troisième mandat xam nga ay Aïssata bi nga wax ne moo ko wax ndax coron koy mi ngi koy soulever léegi dañu ne moom daf ne sax loolu buñ ko defee dina tax ñu ñu économiser suñu kopparu réew mi mais dañ ne économiser kopparu réew mi bu ko bëggee def moom mi nga xam ne dafa bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar kañ dafa war a xool ñoom xaalis alal gi ñu génnee ngir élection réew moo xam ne xale yaa ngi dee ndax ñàkk kaaraange xale yi ñàkk ñàkkuwuñu ndax waa ñay liggéey ci paj mi ñi ngi grève boo déggee ci hôpitaux yi boo demee tey ci hôpitaux yi même bu ñu defee ay même bu ñu defee euh, ay couverture médicale boo demee ci hôpitaux yi léegi dañ lay bindal sax ordonnance su Sénégal nga xam ne hôpital la ko waroon am nga ñëw mu pikiir la dañ lay bindal ordonnance su sax coton nga xam ne opital la ko waroon am hôpitaux yi ñu ngi faible ñu ñàkk kaar ña ñu ngi ñàkk liñ liggéeyee ba nga xam ne fii nga mar fi naan ndox bu ndox bu baax ndox bu potable dugal ci àll bi nga xool ndox bi ñuy naan nga lekk fi ni mu waree xale yaa ngi ci mbedd mi nekk ci affaire taalibe nga xool suñu environnement poussière bi ni mu bëree enjeu yaa ngi fi ne gàññi ñoom ñu am capacité wu génnee milliards yi ne mel ngir élection c'est indécent rafetut rafetut xam nga daf français def naan le premier contre-pouvoir dafa am benn benn borom xam-xam bu ko wax mu ne le premier contre-pouvoir d'un homme politique c'est son scrupule et son scrupule se forment sur des convictions et des valeurs maanaam nit ki li ko war a mun a téye mu bañ a def yenn yi mooy jombale ñoom war nañ jombale seen bopp génnee milliards yi yëpp di jox nit ñi ka tasaare ak def ci ay photo ay bus ah boo xoolee président Macky Sall keroog ba mu demee ci Pikine nekk ci car bu mag boobu nga xam ne car yooyu sax koy gis ci suñu réew askan wi néew doole nekk ci suuf amuñu lu ñu lekk moom mu nekk ci bus climatisé distance boobu am rek loolu dañ ne c'est indécent war nañ ko jombale seen bopp buñ buggee yàqanal alalu réew mi nañ commencé. rationaliser alal bi ñuy def ci campagne ngir falu nañ wax ci jafe-jafe yi ñuy wax nii sénégalais yi ñuy dund nii mu jafe ndox mi di manqué ba léegi gis nga ndox mi bu ñëwee day coupé bëccëg ubbi guddi bu ñëwee ndox ma day xomaat doo xam loo koy naanee doo xam loo ciy def loolu moo gën ñu indi ci débat wu troisième mandat tax ndax ñun troisième mandat pour ñun Sénégal romb na ko ba pare donc wax ci jafe yooyu noonu loolu mooy enjeu wu mandat bi et Macky Sall pour une fois Thiat wax na ko léegi comme nañ ko fayoon kër juróom moo ne woon day def juróom mu gi mu jël juróom-ñaar mu laajaat juróom sénégalais jox ko way woy woy comme jeexal na kañ na xool nu mu def ba génn ci histoire fexe ba réew mi am ay taxawaay yu dëgër justice bi moom boppam comme ni ko sénégalais yi buggee ku feebar faju xale yi am liggéey suñu économie mun a delluwaat ci doomu Sénégal yi loolu la ñuy xaar ci moom waaye du ñëw rek ñu indiwaat ñu ci débat kii dafa war a nekk candidat wala kii dafa dem dinaa nekk président wala ñun ñi ñoo war a far dañuy dem dañuy dem defi ay élection législative avant waay waay waay waay élection nañ ko fàtte ba ci kanam ñu toppatoo soxla askan wi soxla askan wi d'abord balaa ñuy indiwaat ci ay débat naka la ñuy reconfigurer suñu majorité ba fexe ba moomaat assemblée ak yooyu nañ ñu yërëm ngir yàlla nañu yërëm askan wi nga xam ne nan leen ñu génn vote ñu génn vote gi si jàmm ak dal nañ leen yërëm yërëmande ñu bàyyil ñu seen coowu politique yooyu nga xam ne en tout cas ñun waa Y'en loolu mooy ci suñu ax danañ continuer di reeteet bu ko laajee danañ continuer di ñaax askan wi bu ko laajee te kon dañ leen wax ngàcca cangalaama bu leen kenn tuutal ndax tuuti wuñu mm. ndax po leen suñu démocratie soxla wane nañu seen wane nañ seen